kii di Wally suma dooma maa ko jur defe naa ne ni ma ko jure sax gaw ma ne noonu la ko coon jure waaye Wally dama wax sénégalais yi du ma wax kenn man boo dooree sama waay ma dóor la dama naan boo ko dooree ma duma la Wally nañ ko ba mu jaar ci yoon wii ko yàlla teg te mu neex ñu bari ci àddina bi ak ci Sénégal Wally, vous êtes une fierté pour le Sénégal et pour l'Afrique. Vous êtes un modèle pour les jeunes de ce monde. Il faut continuer sans regarder le rétroviseur. Je suis convaincu que vous irez très loin. loolu laa ni woon duma ko mën a bañ a wax Wally suma dooma am naa mbégte suma doom suma jarbaat nekk fii